El Hadj Cheikh Anta Seck ambassadeur euh, déclaration universelle des droits de l'humanité ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay euh, Elisabeth. ñu lay dalal tey nga doon suñu ganu matinal monsieur Seck ñu doo rek DDHU lan la ci dégg. waaw DDHU maa ngi balaa ma cee wax ma nuyu mbokk Sénégal yi nga xam ñoom ñëpp ñoo ñuy ñoo ñuy déglu. Mhm. di leen wax ni DDHU nag ab texte la bu nga xam ni. président bu France woon François Hollande moom moo moom moo ñaanoon. Mhm. ñu liggéey ci teg ko ngir euh, jox ko ñi nga xam ne ñoom ñooy bokk ci kuréelu Nations Unies di wax ci lépp luy concerner environnement ak euh, changement climatique. Mhm. mu nekkoon nag texte bu nga xam ni ki nga xam ni moom mooy nekk présidente bi heure bi nii di euh, madame Corinne Lepage. Mm -hmm. moom moo nekkoon euh, ministre de l' environnement bu France jamonoy COP 21 bi nga xam ne moo amoon ca Paris bi ñu defaree texte bi nag ba noppi dañ ko waroon a dugal euh, Nations Unies dugal nañ ko fa sax pour dëkk yi nga xam ne ñoom ñëpp ñoom ñoo bokk di liggéey ci affaire environnement ak développement durable ñu signé ñu tënku ci ngir lépp lu nga xam ne ñu ngi koy def ci euh, domaine boobu noonu ñu mën a tënku ci texte bi lim ciy wax wala lim ciy digle wala lim ciy proposé. na ma la ko waxee sànq man bokk personnellement bariwul li ma leen di dégg tey na ngeen développement durable tax na leen a taxaw waaye tey question environnement moo tax tey ma gën leen a nemmeeku ci. Euh, li nga xam ne mooy environnement bi. waaw moo ne nag xam naa comme ni nga ko waxee rek euh, bëri na ay ay ay ay actions yu nga xam ne DDH yu def na ko fii ci Sénégal. Mhm. même bu fekkee bim mu fi egsee yàggul parce que euh, deux mille dix huit lañ fi lañ fi ñëw loolu mu ngi am ginnaaw bi ma demee Genève participer woon ci benn euh, séminaire de formation bu nga xam dañ ko doon defar ay journaliste euh, yu dëkk fii ci Afrique sowu jant ma bokkoon ci la suite de ce séminaire là sur l'environnement et sur le développement durable ci lañ ma coopté pour me représenter la déclaration fii ci ci Sénégal mu nekk lu nga xam ne nag wax dëgg neex Yàlla dama cee bég lool ma bind nag autorité yëpp yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk muy ministre de l'environnement bi muy président de la République pour wax leen ne seen doom de sas nañ ko liggéey bii te bëggoon na cee ànd ak yéen liggéey hmm. waaye lettre yooyu yëpp ma bind nag ñoom kenn wuyuwuma ci kenn faalewuma ci léegi nag ñun le fekk que ñoom tontuwuñ ñu taxul ñu toog lépp lu nga xam ne mu ngi concerner environnement ñun ñu ngi ciy ñu ngi wax ñu ngi wax lañ lañ ci xalaat waaye ñu ngi ciy sax def ay proposition li ci jiitu ci première action bi ñu def moom mooy jamono yee passé ba nga déggee ne am na lu mel ni pétrole lu nga xam ne mu ngi feeñ fële ca caaro yi mhm. dem nañ fa xool ko xool nam fa nekkee laajte population ya fa nekk bañ wax nit ñi sax ñoom constaté nañu depuis yëf yi commencé génn am na ñoo ci xam ne buñ sangoo ci géej gi ba génn seen yaram bi day xasan ba après day def ay picc. Mhm. ñu doon ragal nag mu gaañ askan wi ñu taxaw foofu def fa déclaration mais ba pare bind également le ministère de l'environnement ak les autorités compétentes ñu leen xool lii lan la bala moo gaañ askan wi. Mhm. bañ ko waxee sax macha allah ñoom tontu nañ ci ci bon pas lañ tontu mais def nañ déplacement yi. dem nañ fa xool ko jël ci ay mesures. ñun ginnaaw loolu également man en tant que ambassadeur de la déclaration au Sénégal dama ni lii du nekk xeex boo xam ne man dama koy porter mu yem ci man woo naa Sénégalais yépp ñu ànd ko xeex ko bokk ci mais dama ni lu ëpp ci li nga xam ne moom la ñuy def ci lu mel nii dañ koy wax ñun mag ñi bàyyi xale yi ma ni man damay mettre en place le programme des ambassadeurs scolaires. Mhm. muy programme bu nga xam dama ko doon def dama ko waroon def ak euh, gouvernement scolaire yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci école yi nekk Sénégal. Mhm. ma amoon ay école pilote yu nga xam ne ñoom laa jëloon comme lycée Malick Sy bu Thiès lycée Fayou bu Thiès ak lycée Amary Ndack Seck foofu laa defee le lancement de ce programme la mhm. waroon na également jël lycée bu Mbao lycée des Parcelles Assainies lycée Limamoulaye bu Guédiawaye ak lycée John Fitzgerald Kennedy pour lancement bi ma def à Dakar. mais yamu ca programme boobu waroon naa dem Saint-Louis waroon naa dem également Ziguinchor waroon naa dem tamit Kolda pour xale yooyu nga xam ni ñoom ñoo doon magi ëllëg ñu teel leen a imprégné ci changement climatique teel leen a imprégné ci protection de l'environnement teel leen a imprégné ci développement durable ba bu ëllëgee ñun buñ fi nekkatul comme ni ko déclaration bi di waxee génération présente yi ñoom ñoo war taxaw génération future ba ba bu bu ñu demee bàyyi leen fi ñu fekk fi espace bu nga xam ne terre bu nga xam ne dina vitable. ndax jàpp ngeen ne euh, li jëm ci environnement laal nañ ko fii ci Sénégal. ah ah, ah yaa ngi ciy góorgóorlu nag ñu ngi ciy góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax wax dëgg ne xel Sénégal moom ah, li gaa ñi di wax naan ah, desu ci ginnaaw. Mhm. Sénégal moom ci xeex environnement moom desu ci ginnaaw te li ci man li ma ci gën a neex moom mooy. daf ci bëri ñu nga xam ni sax nekkuñu ci benn kuréel waaye dañoo yëg ni dañoo war a préserver environnement bi nekk ñoom de manière bénévole mhm. jóg di engagé wu di def ay reboisement di def ay ay ay ay campagne de sensibilisation di def ay nettoiement mu nekk lu nga xam ni mën naa ne bu fekkoon ni ci Sénégal ni ci doomi réew yi Sénégal engagé woo yeneen réew yi engagé woon nañ kon heure bi xam naa ne li ñu bëgg ci ci changement climatique yi wala réchauffement climatique bi wàcc ba zéro virgule cinq moom xam naa ne kon heure bi kenn waxatu ko dinañ fa àgg. monsieur Seck ñu wax ci luy lëmbee jamono ji muy euh, mbir mi nga xam ne jàpp nañ ne euh, ay gazelle oryx lañ doon transporte jëlee ko fenn di ko yóbbu fenn kii di ministre de l'environnement ñu joxoñ ko baaraam tuuma dégg ci sax yéen ngeen wax ne di ngeen plainte gouvernement lan ngeen koy tuumaal. waaw su ma waree wax nag ci waxi gazelle yi damay wax rek ni bi yëf yi amee. am na ñu nga xam ni man dañ ma interpellé ni ma mhm. lii xew de waroon nga cee mën a wax waroon nga ce mën a àddu mhm. ma ne leen dégg naa ko waaye man xam naa déformation professionnelle la comme je suis journaliste hmm. mënuma jóg di wax ci mbiir te saytuwuma ko xool ko ñan ñoo saisir waaw loolu moom pour loolu moom bàyyil ma bàyyil ma téye ko rek. d'accord waaye j'ai été interpellé woo laaj nan ma ni ma loolu lan nga ci xalaat man leen bàyyi leen ma saytu ko. Mhm. waaye Elisabeth bi moo ko saytoo damaa am lu ma metti mooy dama am lu ma metti ndax dama doon dégg rek ni kër ministre bi siis lañ fa doon yóbbu am ñaar yoo xam dañ cee dañ cee dañ cee dañ cee mujj faatu. Mm-hmm. man bi ma ko saytoo dama dama cee am information yu nga xam ne maa ngi koy continuer di ko leerlu nag ñu ni même bi ñuy demee di leen jàpp ci guddi googu parce que kenn jàpp leen bëccëg. Mm-hmm. opération bi guddi lañ ko doon mëne biñ leen di jàpp ci guddi googu nga xam dañ leen di fetal maanaam pas fetal leen pour ray mais pour pour pour leen doole pour ñu nelawal leen. Mm-hmm. pour mën leen a jël leen petalee comme dañoo da ca am rab mm-hmm. wu ba réer ñi nga xam ne ñoom ñoo leen doon jàpp. Mm-hmm. ba am nañ ci moom firnde bu leer ni ñoom gis nañ ci benn boo xam ne moom daa dee woon mais ragal nañ ni bëri na ci yoo xam ne dee nañ foofu noonu ndax fetal yi ñoom doon fetal. loolu nag comme ni ma la ko waxee. daa nekk lu nga xam ne maa ngi koy continuer di saytu. Mhm. waaye naqare na ma ba ca kanam yàlla. Mhm. Euh, tey léegi nag ci la ci ma wax ni ma yamul donc ci ministre bi mais am na beneen ministre bu nga xam sax turam tudd nañ ko ci. Mhm. ci ni moom rancham yóbbu nañ fa ñett ci mala yooyu noonu. Euh, comme ni ko ministre Abdou Karim Sall doon yóbboo ci rantam mhm. ak yeneen ñett yu nga xam yóbbu nañ ko yóbbu nañ ko yóbbu nañ ko Bandia. tey jii euh, li mu doon euh, ministre bi waaye bu doonoon keneen ndax yéen jàpp ngeen ne procédure bi may na ko mu génnee mala yooyu ci benn béréb yóbbu leen ci beneen. ngir ñu ñu ñu daal di favoriser lii di production bi. Eh, eh, eh, Elisabeth. Mhm. mala yi bi ñu ñëw Sénégal xam nga ñaata la ñu woon ñett déedéet. Ah. juróom-ñett. juróom-ñett yooyu deux mille en deux mille vingt juróom-ñett yooyu nekk nañ fa di reproduire ba nekk quatre cent wala cinq cent. Mhm. ñooñu foofu ñu nekk da leen tere reproduire déedéet terewu leen reproduire te bu ñu leen waree jëlee foofu ñu nekk di leen yóbbu ci feneen d' accord naa nga ni dama leen di yóbbu ci réserve bu mel ni Badja wala dama leen di yóbbu ci réserve bu mel ni Fatala. Mhm. foofu noonu ay professionnel ñoo fa nekk comme suñu agent agent agent euh, parcs nationaux yi nga xam ñoom ñooy sàcc yu nekk Ranérou mhm. mais nga ni da nga jël di ko yóbbu parce que nag rente kër la rek mhm. rente ab kër la rek mhm. nga ni dama koy jël yóbbu ko ci kër nit ba pare li ma ci gën a jaaxal mooy même bu fekkee foofu am na gérant nga yóbbu ko ci zone bu nga xam ne tey jii nii Bambilor fii ñuy wax ni foofu la ko ministre bi doon yóbbu ci Rancham mais ay autorité fa nekk am na usine bu usine sédiment mu ngi foofu Bambilor mhm. pollution boobu yaakaar nga ne dina baax ci mala yi alors que ñoom dañoo nekkoon ci zone bu nga xam ni yaatu na yaatu goo xam ne bu leen neexee ñu xëy suba ba ngoon di daw te duñ jot beneen cat ba léegi nag au contraire dañ leen di dañ leen dañ leen dañ leen di sacrifier mhm. yéen a ngi wax conflit d'intérêt ci seen communiqué bi euh, nu mu doonee conflit d'intérêt waaw conflit d'intérêt bi li koy indi mhm. mooy ministre bi moom lañ ni yow lan nu jox suñu baat ni la képp ku nga xam ni mala yii war na koo mën a jëfandikoo maanaam boo ko waree yóbbu Fatala wala nga waroon ko yóbbu Bandia. Mm-hmm. moom ministre bi moo koy signé. moom nag xam naa daa tax daa déggul wolof lool moo tax mu ne kuy digle cangaay da nga cey jiitu ba tax mu ni moom comme am na ranch. Mm-hmm. moom na jiitu ci cangaay li dem jël yóbbu ci rancham. waaye yow yow mii buñ la dénkee alalu alalu Sénégal ñu dénk la ko ni la képp ku ci war a am yow yaa koy joxe yow bala ngaa da ngay njëkk ci sa bopp man leen déjà moom yorul outil wala wala milieu bu propice pour ñu fa malay sax mais bu dul dara buñ jëlee exemple rek ci ministre des finances mm-hmm. ministre des finances tey jii nii bu fekkee dañ ni ko yow yaay ministre des finances yow yaay contrôler trésor mu ne xaalis ba fa nekk jël leen ma jël leen ko jox ma ko. Mhm. sama kër wala sama banque wóolu naa leen mën naa faa denc xaalis bi. denc ko foo pare wëlbatiku ni bu amee intérêt man dama ciy jël sama wàll li ci des ma delloo leen ko waa Sénégal loolu ñun war nañ koo nangu. loolu yaru na maanaa. Mhm. waaw tey euh, ngeen euh, ne da ngeen di plainte fu mu toll plainte bi sax justement. waaw plainte bi nag euh, comme leen ni ma la ko waxee sànq rek jamono ji nga xam ne maa ngi yaa ngi ñoo ngi doon wootante sax pour préparer interview bi. Mhm. mu ngi fekk juste maa ngi euh, jot kuréelu Nations Unies bi nga xam ne ñoom ñooy saytu lépp luy soxal animaux faune sauvage. Mm-hmm. doon leen yëgal ni Sénégal am na lu fi lu nga xam ni dinaa leen saisir plainte officielle dama leen doon dama leen ko doon digal rek. Mm-hmm. mais ni leen dinaa leen saisir ci plainte bu officielle. Mm-hmm. bu nga xam ni ñun wa déclaration universelle des droits de l'humanité section Sénégal ñun ñoo koy def pour alerter leen ci li nga xam ne ki ñu dénk pour moom mu sàmm. Euh, animaux yi moom moo koy nekk di ko di ko caxat caxatee. Mhm. léegi xam naa ne nag euh, comme ni ma la ko waxee rek. waaw incha allah rabbi moom buñ nee déposé nañ ko rek. Mhm. yow moom buñ ma joxee copie plainte wala accusé de réception comme dañ koy wax. Mhm. yéen waa réew mi laay njëkk woo ni leen plainte bi déposé nañ ko. waa justement balaa ngeen di déposer plainte bi est-ce que jéem ngeen euh, jël euh, wala sax jéem waxtaan ak ministre bi nga xam ne moom la ñuy joxoñ baaraam tuuma ci mbir mi. ndeysaan Elisabeth xam nga lan moo ma xam nga lan moo a lan moo ma naqari Sénégal. déedéet. da ngay nekk ci mbir. Mhm. àdduna di la ci déglu wala àdduna di la ci naw. Mhm. sa réew di la ko xebal sànq wax naa la ko bi may door ni bi ñu jógee ci formation bi Genève. Mhm. ñu coopté ma pour ma nekk le représentant damaa bind présidence de la République bind ministère de l'environnement mais ba tey kenn tontuwuma ministre bi nag noonu la demee ak man ci action ak activité yi nga xam ne yëpp ñu ngi koy def ci environnement te nekk ñu koy jàppalee. Mhm. doo ko envoyé message mu tontu la doo ko woo mu wuyu la et ce la première fois man nag wax dëgg neex yàlla ginnaaw defuma pour moom damay def pour sama askan damay def pour Sénégal damaa yaakaar ni rek le minimum moom mooy même bu fekkee loolu passé na sax boo ko woowee mu wuy la wala mu tontu la. kon kay loolu firndeel na ne euh, question environnement euh, doonul lu ñu fulaal lool fii ci biir réew. fulaal fulaal nañ ko. Hmm. fulaal nañ ko de xam nga lan mooy problème bi. Hmm. peut-être ñoom ñooy sàkku ban acteur la ñuy liggéeyal wala ban acteur la ñuy waxal wala hmm. wala ñan lañ ci échanger. ok peut-être loolu la dafa xanaa damaa yaakaar day am ak. ay ay ay parparloo kon mhm. ci ñi nga xam ne ñoom ñoom la ñuy liggéeyal. d'accord waaye wax dëgg ne xeer la liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey Sénégal fii ci affaire environnement moom. Mhm. wax dëgg bu ko ñëpp defoon environnement lañ ci soxla dinañ ko atteindre ci àdduna. Eh, monsieur Seck bu weesoo loolu tey jii Sénégal am na ay réserve naturelle euh, ndax jàpp ngeen ne la war am na ci réserve yooyu. waaw man de dama naan dama naan gàcce ngaa laama suñu agent yi. Hmm. gàcce ngaa laama suñu agent yi. même bu fekkee ne nag wax dëgg war nañ leen a yokk doole lool war nañ leen a renforcer ndax bariwuñu ñoom day lii nga xam ne ñu ngi leen koy dénk ñu ngi ciy def liggéey bu mucc ay waa agent yi euh, certes ñoo ngi def seen liggéey mais ndax am nañu euh, jumtuwaay yi nga xam ne ñu ngi leen di permettre ñu def seen liggéey. waaw loolu laa lay ma ni la bu weesoo le fait ñoom bariwuñu. Mhm. wan war nañ leen a dooleel. ci jumtukaay yooyu nga xam ne ñoom moom lañ war a muy alam gi mhm. muy jur gi mhm. animaux sauvages mhm. ak it waaye ak it li nga xam ne mooy anam gi maanaam nekkin bi waaw waaw waaw moom la xam nga xam nga xam nga dafa am benn mbir bu nga xam ne parfois wolof bi moom mooy xaw a wolof bi moom mooy xaw a diis mais ñun bu ñu la waxee écosystème rek day tënk lépp écosystème rek bu ñu la ko waxee day tënk lépp maanaam tey jii nii bu fekkoon dañ leen a dooleel ñoom agent yi. Mhm. mettre leen dans de très bonnes conditions yokku leen tamit macha allah Sénégal annoncé na que sax war nañoo def recrutement wu deux cent éléments wu. agent eaux et forêt agent eaux et forêt mhm. félicitation laa di wax loolu moom lu am solo la mais buñ leen yokkee nit ñi ñu bari ba pare effectif yi dañ leen a war a jox jumtukaay yu nga xam ne dina tax mala yi ñuy sàmm wala àll bi ñuy saytu. ñu fexe ba mu nekk lu ñoŋ. El Hadj Cheikh Anta Seck ambassadeur officiel déclaration universelle des droits de l'humanité ñu ngi lay euh, remercier. maa ngi lay remercier bu baax Elisabeth di sant waa Sénégal.